te Alioune ci jëm boppam moom mun naa la ne moo njëkk nekk membre fondateur euh, ci suñu association bi en 2015 2017 bu ñu koy 2015 2016 bu ñu koy sos Alioune Sarr jëm boppam moo njëkk jënd carte membre moo njëkk jënd carte membre génne un volume de 50 000 teg ko ci kaw taabal bi ci wóolu 50 000 boobu moom lañu ñu déparé ci la ñu defee suñu récépissé am ci suñu carte euh, suñu carte membre bon mun naa la ne bu nekkee noonu oto tey mun naa ne moteur bi moom la depuis 1900, depuis 2017, chaque année Sarr dinañu jox ba 2020, chaque année à Sarr dinañu jox li nga xam ne ne moom la ci mairie bi ko ci rafet bi ci tabaski bi chaque année depuis 2017 ba Sarr boo xoolee tey mun ko en global tout lu mu bon bon bon bon Aliou Sarr dimbali nañu au voleur ay 5 millions wala 4 millions 5 millions yu war na war na mën a ne parce que tey suñu suñu suñu waxee affaire euh, ndimbal bi ci ci récépissé bi bu ñu ko wut tamit Aliou Sarr moo ci taxaw ba ñu am suñu récépissé wa euh, ba ñu am suñu récépissé ci ci ci bu ñuy def tamit journée journée journée journée saa ñaari journée yi ñu ci def yëpp ah maire Aliou Sarr def na ci wàllam ba mu mot sëkk wax dëgg def ci wàllam ba mu mot sëkk ci dem ci mbirum santé. dem ci mbirum santé mbirum santé mi tey boo xoolee tey ah, carnet mutuel de santé yi am moo ci jàpp bu baax a baax a baax a baax jàpp na ci lu baax a baax a baax parce que tey soo xoolee carnet mutuel de santé yi tey daanaka mun naa la ne ñi nga xam ne am nañu carte égalisée chance ñi nga xam ne am nañu carte d'égalité chance 137 ñoo fi am carte égalisée chance sur 312 personnes sur 312 handicapés mais si 137 yooyu moom Alioune Sarr fexe na ba enroulé ci 90. baax na lool waaye tamit ba léegi ñu ngi tàllalaat mairie bi tàllal suñu loxo. volet volet bi nga xam ne tamit jëm ci lu mel euh, éducation tamit ah vraiment tamit moom tamit mu ngi ciy def kéemtulaay kattan parce que am na ñoo xam ne tamit ay personnes la ñuy handicapé la ñuy xale la ñuy jëm tamit ñoom tamit booy wax dëgg ne yàlla de moom Aliou Sall jëm boppam mu ngi leen ci jàppale pour xale yi tamit mun a jàng la xam naa ne daal euh, su fekkee ne amul. bii nag tabaski bii tabaski waxuma la bii rek wax na tabaski 2017 2017 tabaski 2018. tabaski 2019 tabaski 2020 yëpp wax dëgg neex yàlla indi na ci participation bu mota mota mota mota mota ah xam naa ne nag ku la ku kuy raam di lay boot yaakaar naa bu demee ba taxaw rek dina la mën a yóbbu dina la yóbbu sori Cheikh. mbas mi ah, ba léegi ah, moom ci boppam a ah, fexe na mu ma du mu la mën a wax ni ci jëm ci diwlin bi ak ceeb bi kit yu ñu doon def yi xam naa ne. dafa xat diggante fee tabaski dafa xat mais xam naa ne qualité defar nañu ko pare ba nga xam ne après tabaski ah mun naa la ne képp koo xam ne am na carte égale licence képp na carte égale licence ni amee woon noonu la ñu amee fàtte wuñ ñu waaw fàtte wuñ mu wóor na wóor yàlla tabaski bi bu paasee képp koo xam ne indi handicapé bu am carte égale licence la ñu wax nag parce que bu ñu nee handicapé rek ñëpp ñoo. carte waaw. boobee yàlla ñoom tamit dinañ jël seen kii.